société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yér yéen i kaay ñu xëyanto yéen i kaay gi di réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naan ñu réew mi di sénégalais accident yaa ngi mel ni tulleeg male mën a la nit ñaa ngi dee comme weñ ci accident yi waaye nag ñii nga xam ne ñoo yor camion yi ñoo ñooñee nag jamono ji maanaam ñoo gàddu nag congolonko gi maanaam ñoo gën a mën a def ay giraawal yi camion yi camion yi ñoo ngi def ay accident camion yi ñoo ngi rey ay nit bu a baax freiner camion yi loole la Assane Samb xëy laaj ci yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ma ne la yi dafa bëri lool te ñi nga xam ne nag ñooy camion yi li ñuy def ay accident ak li ñuy rey ci ay nit bëri na loola ma ne la sax bu passé accident yi nga xam ne ñi yor camion yi ñoo ngi koy def ma ne la nu leen neex la ñuy dawalee ci kaw tali bi ñi yor camion yi bu ñuy dawal ci kaw tali yi ci digg bi la ñuy jaar oto du mën a dem oto du mën a dikk keree nag li nga xam ne mooy circulation heure bu leen neex la ñuy dawa am na camion yoo xam ne dañoo màgget ba maara de Italie ma la am na sax ay camions yoo xam ne ay xale yu ndaw ñoo koy yoro xale yoo xam ne amuñu benn expérience ba tey ci biir surnal bi di réew mi quotidien nee na nag camions yi waaw naam baax nañu am nañu njariñ waaye nag li nga xam ne moom la ñuy def ni ay loraange moo bëri te sax mbir mi nag dañu ko war a réglementé ma ne la dañ see war a ak jubbante te nag bëri nay camions yoo xam ne visite technique na leen raye amuñu visite technique yéen a kaay gi du l'observateur xëy di dëggal njombe yi nga xamante ni camions yi ñoo ngi koy defar ndax nee na fii ci Ndakaaru ci VDN bi waaw démb am na camion boo xam ne dafa jékki-jékki mamo rey ñaari jigéen am na si tamit ñaar ñoo xam ne ma ne la ñoo gaañu ba maara détail yéen a kaay gi de la turbina xëy di ñu xibaar naan ñu kay accident yi bëri na ci senegal de ñiy faatu ci accident yi bëri na de ndax lu toll ci fukki fan rek fukki fan lu toll ci fukki fan am na lu toll ci fanweer ak juróom benn ñoo xam ne faatu nañ ci accident yi maanaam ci fukki fan rek dix jours trente six décès ci accident yi accident yi bëri na ci Sénégal ana nan la ñu gi di Vox Populi bu dee nag war nañoo saafara nag li nga xam ne mooy accident yi waaw naam dëgg la waaye nag grève yi grève yaa ngi mel ni tulleeg ci réew mii di Sénégal ndax ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci ministère de l'agriculture dañoo fas yéene dem ci ab grève ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci ministère de l'élevage dañoo fas yéene dem ci ab bi ñu dénk wàllum pêche ne ma napp gi ñoom tim dañoo fas yéene dem ci ab grève maanaam 72 heures yéen a kaay gii de sa nee na tamit ñi nga xam ne yi nekk juróom benn fan la ñu fas yéene dem ci ab girawa la nga xam ne nag moo ko waral waa impôt domaine agent ya ñoom nee nañu dañu leen joxoon lu toll ci ñeenti hectare ca géej waaye tañu ñu jekk-jekk daal di koy nangoo yéene kaay gi tamit nee na ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci jaww ji dem beeg dikk bi ci aéroport ñoom tim dañoo fas yéene dem ci ab girawa yéene kaay gi di réew mi ko di jeex yóbbu ñu assemblée nationale nee na coow li démb mel na ni tuleeg male assemblée démb pëccëxoo na loola ndax démb la ñu doon taxawal li nga xam ne muy njiitul commission yi waaye nag mbir mi nag yeexoon na lool mën na neuf heures mbir mi demul cee nga dikkul ndax consensus amutoon ci mbir mi ñi nga xam ne nag ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo bëggoon a ngar dajjoo li nga xam ne mooy commission stratégique yépp commission bi ñu dénk loi yi bennoo dañu koo bëggoon a ngar dajjoo commission bi ñu dénk sénégalais yi nekk extérieur bennoo da koo bëggoon a ngar dajjoo ak lu jëm ci wàllum commission sécurité ak yeneen ak yeneen loolee nag la opposition bi lànkoon ba tëdd sa naaj wa ba ñu demee nag ba su ga Benno toll ci juróom ci ay commission wàllu Sénégal am lu toll ci ñaar ci commission yéene kaay gi di direct news Thierno Alassane Sall nee na assemblée nationale bii amul benn rupture boo xam ne am na ca Mamadou Lamine Diallo bu tekki waa nee na Amadou Ba mii nga xam ne moom la ñu andi def ko premier ministre ndax mën naa saafara jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji askanu Sénégal ñoo ngi koy dund ab laaj la yéene kaay gi di la réveil quotidien ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Abdoulaye Balde ñoom nag mer nañu ba maara day taali ndax Abdoulaye Balde allié la te nag Abdoulaye ko ci gouvernement bi loolee moo tax ndaw ñi nga xam ne ñoo ànd ak Balde mer nañ ba maara day tale yéene kaay gi di bi Guy Marius Sagna mi nga xam ne Barthélémy Dias daf koo jëloon muy liggéeyee ca mairie bu Ndakaaro Guy Marius Sagna léegi député la démissionné na ci mairie bu Ndakaaro Basirou Gueye Serigne Basirou Gueye mi fi nekkoon procureur xam ngeen ko jamono ji moom Serigne Basirou Gueye yóbbu nañ ko Thiès fa lañ ko fas yéene yóbbu ngir nag mu nekk procureur bu Thiès mi nga xam ne mooy maire bu Thiès Nord moom te mu nekk député jamono dafa fas yéene nag tekki ndombal tànkam ci mairie bu cees Nord ndax nag dafay bañ nekk maire bañ a nekk député ndax ñoom nag ñoo ko waxoon ñoom waa Pastef yéen kaay gi di Vox Populi nee na tay la tay ci Barthélémy Dias ci lu jëm ci mbiri Ndiaga Diouf l'observateur xëy di ko dëggal yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy ci 77e assemblée générale des nations unies Macky Sall moo fa nekkal africain yi maanaam avocat africain yi kay Macky Sall la ci lu jëm ci wàllum exploitation sunu ressources naturelles yi yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na ci assemblée générale des boobee Macky Sall nag wax na fa lu jëm ci wàllum terrorisme sécurité climat ak énergie yéen kaay gi di 24 heures waaye nag nee na ba ci gub démb bi ci Macky Sall weex na ko xatt ndax Ousmane Tounkara activiste moom ak ñi mu àndal démb yuuxaloo nañ Macky Sall ba seen xol sedd yéen kaay gi di libération xëy xibaar nan ñu banque agricole ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne moo amoon banque agricole am na geneen giraawaal yi ku fa ama ndax am na benn détournement boo xam ne toll na ci benn milliard bu fegg ñaari téeméer ak